jëlilaay mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala barakaatu commission sociale di kuréel gu mag googu di banqaas bu nekk ci biir Tuuba ca kanam ñoo leen di nuyu nag ci njiital sëriñ Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah ñoo dellu siwaat rek fas yéene ànd ak yéen mbokk yi ngir joxañ leen ngir wan leen ngir ànd ak yéen baaxee leen ne mbokk yi bu fekkee ne sa xel dafa dal ba amuloo benn jafe-jafe na bàyyi xel ne am na koo xam ne mu ngi tawat ay at mënut a jóg fi mu tëdd mbokk yi mbokk bi bu fekkee ne xëy na yow leneen mooy sa problème waaye am na ñoo xam ne wér-gu-yaram mooy seen problème li tax mu doon seen problème nag seen feebar métti na seen feebar yàgg na seen doole néew na te it nag seetaan nañ leen loolee la commission sociale bu Touba ca kanam jóg taxaw temm di ci bay waaram mu doon nag waar wu yaatu woo xam ne mbokk yi foo ko natt rek weesu na ko waaye nag nañu jéem rek ndax lii commission sociale di def bu yaatoo rek yu bari mën naa saafaraw mbokk yi xool leen kii xoolal yaram wi nii mu mel fu ne dem nañ fa jël nañ taxi luwe nañ oto yéeg nañ sareet fu ñu dégg ne bu ñu fa demee yóbbu fa soxna si rek am wér dem nañu fa mbokk yi feebar bi gën di métti di gën a yàgg ba tëdd sax mënu ko mbokk yi tëdd tëdd rek mënu ko mbokk yi genn wet rek la mën a tuddee mbokk yi lii xam ngeen ne métti na mbokk yi lu tax xamuñu lu ko dal mënuñu koo faj commission sociale nag fas yéene cee bay waaram waaye mbokk yi nañ déglu ki nga xam ne mooy magam mu nettaluñu rek fi mu jaar ak soxna si ak feebar bi nii nga xam ne noonu la koy def. Euh, li ko dal nii daal euh, bi ñu màggalee ba xam naa ne des na ay ñaari fan la daw ñëw sama kër na man Moodu de sama yaram yi day xasan ma ne ko xasan mun ma waaw moo ko di gannaaw won ma waaye ba ma koy won booba daal dem mel ni daal koo xam ne dangaa yore ay xasan xasan rek mu di ko xasan ba mu def ay ñaari fan ñetteeli fan bi affaire bi gën ko attaque. jékki-jékki rek mu mel ni daal yow yaa ko sotti am ndox mu tàng rek muy futtu rek fu mu laar rek foo ko gën a yàqu boobaa rek ñu walbatiku nag dugg fii dem fu nekk ñu def mais boobu ba léegi daal tëdd bi mu tëdd nii nii lay tëdd nii lay dëppoo ñii nag am na ay version ndax boo demee di faju ñii dañ lay wax ne waaw dañ lay wax nii la ñii la naan naa la boobaak léegi nag man mii de maay seen maay seen taawu yaay booba léegi fu nekk dama daan jël oto di ko fa yóbbu wala ma jël saret di ko fa yóbbu yoonam ma ko mujjee yóbboo Dakar nii rek sept place laa luyee woon bi ma ko luyee fay ko fukki junni ñu yóbbu ko principal mais heureusement bi ñu demee dañ ne amuñ place ñu daldi ko indiwaat tëdd tëddam bii nag moom ba màggal gi passé ñaari fan moom daana toog mais depuis boobu ba léegi dëpp bii la lay def ndax su neeneen ne jaaxaane day fatt sama rakk bu jigéen bi nag kooku xam ne moom moo ko daan sang mooy def lu nekk na ko ay kayit pour ñëw teg mais boobu day amu gisuñu si résultat boo xam ne daal mën naa toogaat toog bi yaram wi nag gënoon na fee gën a mel nii ndax boobu da daan nàcc drop bi yëpp lu ñu ko sàng nii bu ñu ko paree dinañ ko génne sax bu ñu ko defee yaram wu lu day yàqu ñu jëlaat morso di ko si sinal ba mu commencé def heure yi nii waaw. feebar bi nag ndax moom mi tëdd nii ñun li ko yaakaaroon ñii dañ doon ay ndoxu siti la ñii ne korto la. ñii ne lu nekk la version yi daal bari na. waaw médecin yi nag bi ñu demee dañoo bindaloon benn këyit rek indi ñu ko ne fii amul place ndax jotuñ ñoo wax sax loolu dañu bu ngeen demee na ngeen def analyse bu ngeen defee analyse bi ak rajo bi ngeen seet deret bi ak xol bi ñu xool ko ba xam depuis booba léegi nag ñu ne woon danañ leen woo waatuñ waxuñ ñu dara. kon boobu non màggal bi demoon nañ analyser ndaamaatu ñoom demoon nañ sama rakk bu jigéen demoon nañ ba indiwaat këyit yi waaw booba affaire booba ba ñu génnee ndax dañoo toog ba si yàgg moom mu ne ñemewu fa muy tiit di yuuxu ba mu génnal boppam aussi deuxièmement bi tamit dañoo dem ba amatuñ lu ñu ko fayee ndax bu ñu xëyee dañuy ordonnance yi day tàkkarnaase amuñ dem ba léegi mu jig amatuñ lu ñu fayee moo taxoon mu wëlbati comme mu amatul lu ñu fayee chaque jour bu ñu xëyee dañuy daggal te yàlla def suñu loxo jotul suñu gannaaw nañ ko indi ñu xaar yàlla boobaa loolu nag résidents yi génnul ba léegi xamuñ si moom dara boobaak léegi war naa bay ay 4 5 mois wala 6 mois kay yàgg na. bi mu gëjee génn fii ak léegi. eh loolu moom yàgg na màggal ba sa ba màggalee ba am juróomi fan daal la gëj a génn. waaw màggal Tuubaa gi paase. waaw depuis ba léegi la gëj a lu muy def daal dañ ko koy def même bu ma koy yóbbu keroog damaa woo fi ay nit ñuy jàpp si tànk yi ñu boole ko mat la bi ma tëral ko jël set place bi tàllal ko mu tëdd ba biir Dakar ba ma demee tamit yàlla def na yënduwul. yóbbu nañu fii li affaire yi der yi ñu jàlle ñu si beneen principal ñu dem foofa tamit ñooñu tamit nañu fi amun place daal lañ ko indiwaatee si bis bi waaw mu tëddaat day yuuxu day yuuxu yenn yenn saa day yuuxu day xar bu ma nekk su jógee sama kër ñëw fii su ko defee ma jël sama kurus toog kawam ñaan def ay def mu xaw a dal ma tëddaat nii daal la ñuy def ak moom chaque jour amul kuy mën a liggéey man mi seen mag sax wax naa ko kii dem mënatumaa liggéey ndax ma maçon laa waaye mënatumaa dem fenn ndax moom waaw su ma demee ba yëg si safa wala may dem bay woo ñu woo ma ma bàyyi su ma ñëwee fii léeg-léeg dèjà ay jooy laay fanaane ndax dama koy tiim mënu ma si moom dara waaw dama koy tiim wax dëgg yàlla maa ngi sama juróom fukki dama koy tiim nii di jooy mënu ma moom dara te maay seen taw maay seen mag fu may xalaat nag daanaa jël ay sareet di àbb ay jakarta fu nekk si àll bi yaaka yaakaar nag dugg rek dugg naa fa waaw waaw moo demee léeg ñu naan ma diñ ko def lii ñii ne naan lee ñu leen xam nga boo feebaree te amoo fu ñu la xalaat rek da ngay daw waaw mais yaram yi boo ko muti woon tànk yi léegi daa bañ nag moom tànk yi si boppam léegi mën naa jóg ween ñoo njëkkoon a yàqu ni mais ween yaa ngi gëm mais tànk yi léegi yëpp a yàqu mënatul bank mënatul def daal li muy def daal fii lañ ko koy defale buñ paree nata waaye taalaat cuuraay mu ñëw tëdd hmm? kii nii kii war naa am xam naa ay ñeent fukk ak lu teg waa amoon na bërëm kër borom kër bi dañoo tàggu avant feebar bi waaw kii amoon na beneen borom waaye kii la si am kii bi mu wàccee dafa ànd ak laago benn doom bi la am papa mi ngi si daara ji moom dafa judduwaale laago waaw boobu léegi amaatul doom. kon xam ngeen ne mbokk yi mbokk Touba ca kanam am na maanaa de mbokk yi saa bu jaayante jotee ci commission sociale boo jaayantee xoolal ci fu mel nii la jëm mbokk mi mbokk mi xoolal kii ni yaram wi mel ay at te fu ne dem na fa. lu ne dugg na ko lu ne daj na ko waaye xalaas tey nag ci kàttanu sunu borom commission sociale fas yéene cee taxaw waaye it nag yéen a ñëpp jàmm moo tax muy tàllal loxo ñëpp na leen ñëw leen ci commission sociale ñu seeti ñi nga xam ne dañoo new doole ñu jàppale leen ñëw leen ci commission sociale ñu seeti ñi nga xam ne dañoo tawat ñu jàppale leen ñëw leen ci commission sociale mbokk yi ñu ngi sant suñu borom bu wér bi mu la mayee wér ak kàttan mbokk yi manqué waloo dara mbokk yi waaye na nga bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñu ngi tawat te kaay yi bëri nañ lool nag mbokk yi kon nag commission sociale ngi tàllal loxo ñëpp di leen wax ne rek saa bu yëkkatee loo xam ne social saa bu yëkkatee loo xam ne jaayante rek lu mel nii la te yéen xam nga ne lii jar na ko de yow mi nga xam ne yaa ngi wér plek di jóg saa boo xëyee dem di doxi say soxla yow mi nga xam ne yaa ngi wér plek saa boo xëyee ubbi sa armoire di naataable ban yëre ngay sol tey yow mi nga xam ne yaa ngi wér plek di xalaat looy añee ak looy reeree na nga bàyyi xel ñii mbokk yi bëri nañ ci dëkk bi de te ñu mat a dimbale lañ kon jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolu la commission sociale dox kon nag mun ngeen a jokkoo ak ñoom ànd ak ñoom ñu wër kaa yu mel nii dimbale leen ci kàttanu sunu borom. maskanitu baabaat misras mi